salaamaaleykum mbokk yi tey la altine fukki fan ak juróom benn ci weeru tam atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yemoo ko altine fukki fan ak juróom ci weeru août atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar tënkum xibaari bis bi ci Ali Imran TV li ci gën a dañu koy door rek raglu bu daan tekk moom nag tëj na ni ki tey ay wuntam euh, bu nu sukkandikoo nag ci njiitul euh, raglu ba di doktoor euh, Babacar Thiandoum mu ngi dalal xelu jarak yi bu baax a baax nee na daal mboolem jarak ya fa doon faju danañu leen toppatoo bu baax ba dara du sooxee ci seenum paj mboolem ña nga xam ne nag ñoo fa doon faju te amee jàngoro jii di doye di roño ñoom ñooñee daal danañu leen yóbbu foofee ca bayaalub ajkat ya ngir daal ñu mën faa wëyal seenum paj te bokk na nag ci raglu yi nga xam ni euh, mboolem jarak ya doon faju ca daan teg mën nañ faa wëyal seenum paj euh, raglu euh, dal jàmm ak abbas ndaw wala raglu tut tànk ya ca jam ñaajo niki noonu it barabu fajukaay ba ca kër Massar docteur Babacar Thiandoum nag ma ngay dalal xelum jarak yi di wax ni daal mboolem ña ñu fa diggoon daje àpp yooye ñu leen joxoon benn du ca berandu euh, bu ñu toxalee daal seen i wànqaas ba noppi ku ca nekk rek dana nu la woo ci sa kilimat wax la ne la kat yow euh, bi sàngam nga war a ñëw waaye raklu sàngam ngay dem euh, moom docteur Babacar Thiandoum di dalal xelu liggéeykat ya nekkan ca raglu boobee ne daal ñoom ñëpp dana nu leen toxal ci yeneen i raglu am na njort lu rafet ni daal kenn ca ñoom du ñàkkub liggéeyam ndaw ya nekk ca njaafat di gox bu nekk ca kawlax amal nañu doxub ñaxtu ni ki démb la ñuy lu nag mooy seen mbokk ma ñu rey ca almaañ di Mamadou Lamine Dramé te ñu wax ni nag way takk der yu almaañ yi ñoo ko faat ca Dortmund ñoom nag daal nee ñu ñoo ngi woo nguurug euh, Sénégal ñu dug nag taxaw temm ca mbir moomee ba nu xam daal ana lu waral ñu rey seen euh, doom joojee ca anam gu ñaaw googu njiitum réew mi Macky Sall ña nga koy xaar tey jii ci altine ji foofee ca réewum Mali mu fas fa yéene amal tub cib nemmeeku njiitum réewum Mali di Assimi Goïta euh, moom nag dana ko dalal euh, bu ñu ca jógee nag dana nu tëju ñoom ñaari njiiti réew yi ngir daal waxtaane mboolem lu soxal ñaari réew yi góor gi si Dieng di doomu réew senegal buy yëngatu ci wàllum euh, tàggat yaram defete jëf ju rëy muy nag ab raglu bu muy tabax foofe ca dëkkam di Kébémer raglu boobe sax teg na xeeru njëkk wi ni ki démb ci kanamu kilifa yi raglu boobe nag wax nañu ni la ca war a dem ci koppar toll na ci ñeenti tam ñeret maanaam 4 milliards euh, raglu boobe nag euh, bu noppee dina am lu toll ci téeméer ak ñaar fukki lal xam ngeen ni mbokk yi noo ngi waajal jongante HCCT yi euh, mboolem nag lu aju ci euh, yóbbum la wax yi maanaam daal képp koo xam ni bëggoon nga caa bokk euh, da ngaa waroon a rek daal di yóbbu nag sa way ndare foofee ca kër gay yi taxawu wàllum jongante ya waaye nag tëj nañ ko niki biig ci guddi maanaam daal fi mu nii képp koo xam ni bokkoo ci woon ba nëgë ni duutoo ca mën a bokk jongantey HCCT yooyu sax ñu bari ci ku jëkk politique gi dañu ko wan ginnaaw ndax nee na ñu kër googee daal amalul njariñ réewum senegal kër la rek guy yàqi koppar ba tax na daal ñoom ñu banque seeni yoxo ne daal duñu ca bokk mbokk yi dañuy daaneele ak euh, tàggat yaram dañuy dem foofee ci réewum France foofe nag euh, doon nañu woyal daal seen raw gàddu ya ni ki démb euh, Brest moom dafa témboo ak Marseille benn ak benn Auxerre ak Angers ñoom itam dañoo témboo ñaar ak ñaar Nice ak Strasbourg ñoom itam noonee lañu def témboo benn ak benn ñu wéy ca Angleterre foofe nag ñaareelu bëccëg gi lañu doon amal foofee Nottingham Forest moo daan West Ham benn ci dara Chelsea ak Tottenham moom dañoo témboo ñaar ak ñaar euh, jongante boobee nag euh, Kalidou Koulibaly di doomu réewu Sénégal euh, dugal na ca poñ bu rafet waaye daal mujj doy ndax daal ca njeexintal la dañoo mujj témboo ñaar ak ñaar mbokk yi ñu dem ca Espagne foofe nag bëccëg gu njëkk gi la doon wéyal Almeria moo doon jongante ak Real Madrid euh, Real Madrid nag moo mujjee am ndam ñaar ci benn Valence moom moo fekki ba noppi daan Gérone benn ci dara Real Sociedad moom moom itam dafa daan Cadiz benn ci dara ñu dem ca almaañ jongante bi doon dox nag ci diggante na bu Sadio maani ak euh, Wolfsburg foofee nag euh, na moo ca amee ndam ñaar ci dara euh, songu katub Sénégal bii nag di Sadio maani mujj ca dugal ginnaaw boo xamee ni daal dugal na ñaari poñ yoo xam ni jongorukat bi da ko bañ Euh, baneen jongante ba doon am nag foofee ca Allemagne ki démb ci diggante Mayence la doon dox ak Union Berlin ñoom nag dañoo témboo kenn dugalut sa moom dara sa morom dara dara ci dara la ñu mujjee euh, mbokk yi lii mooy li fi ruusoon ci tënkum xibaari bis bi ma amoon mbég mu rëy doon leen ko jottali ci Ali Imran TV te di leen dig daje ëllëg ndem soob na yàlla